allahu akbar allahu akbar la ilaha illa allahu wallahu akbar allahu akbar allahu akbar walillahi alhamd mbokk julit yi ñu ngi sant suñu boroom sant boo xam ne amul app ñu ngi màggal suñu boroom màggal yu bëree bëree bëri ñu ngi jàpp ñu ngi koy koy seedeel ne moom rek lañ féetale ci kaw lépp moom rek lañ féetale ci kaw ñépp yàlla moomu jalla wa ala ay yéen julit ñi góorgóorlu leen ngeen ragal ko ngeen moy ci li nga xam ne mooy buum gi nga xam ne moo leen di sauvé adduna ak alaxira ca mooy buumub lislaam ngeen góorgóorlu yóbbalu wa ragal yàlla ci tukki bu màgg bii ñu nekk ñoo ngi tukki jëm bàmmeel ñoo ngi tukki jëm taxaw ci sunu kanamu boroom amul lu gën a màgg yóbbal ci loolu mooy yóbbalu wa ragal yàlla ci def ay ndigalam bàyyi ay tereem gannaaw loolu mbokku julit bépp xeet bu am ci kaw suuf am nañ bis yoo xam ne dañ koy feetu feet boo xam ne seen pas-pas da cay feeñ seen aada da cay feeñ amma ñun diini lislaam suñu borom yàlla ñaari feet rek la ñu tànnal feet bu njëkk gi mooy feetu tabaski feetu ñaareel bi mooy feetu korite feetu korite boobu nga xam ne mi ngi am gannaaw bi nit ñi wooree ba pare ba yëg ne weer yi feeñ na ngalawaay yéen mbokk julit gëm leen ne li nga xam ne mooy weeru korite bii day feeñ na ca Mauritanie feeñ na ca Mali feeñ na ca Guinée feeñ na ci Gambie gi nekk suñu biir loolu mooy dëkk yi ñu gën a jege nga xam ne boo delloo kër ga laajal sa baay wala sa maam lu yàggul dara da ngay gis Sénégal yàgg nañoo déclaré di woor a ko wari ngir weer wi feeñ na ci dëkk yooyu wala fu gën a sori waaye mu am beneen mbir bu yàlla def Sénégal gépp yëg nañu ne am na benn ndaw diine boo xam ne moo demoon ca concours alquran ba adduna yépp daje mu raw leen ndaw loolee kaka jàngal kam nekk ca école am mi ngi tudd Mouhamad Habib Sy di docteur Mouhamad Habib Sy docteur Mouhamad boobu def na benn communiqué génne lu juróomi nit yoo xam ne seen tur man ka yor yor seen numéro téléphone juróomi nit yoo xam ne seedeel nañ ko ni bii day gis nañ weer yi fii ci foora fi ñuy jaaye nag yi mbokk kon la chaque amul ci ne tey jii day mooy bisu korite loolu mi ngi noonu loolu nag yonent bi alayhi salaam da ci daan profité nee na jigéen ñi génn jànq yi génn même ñi ànd ak règle génn leen lan mooy jubluwaay bi ñu daje fàttaliku waat suñu base bi diine ngan la way mbokk loolu mooy xutba korité wala xutba tabaski yeneen xutba juma yi mën nay jël ci ay thème amma bu dee ne la nga xam ne mooy xutba yi base yi moo gën a am solo ñu fàttali ko ko xam leen ne réew moo gis am nañ ay constitution am nañ ay tërëlin comme ni ko Sénégal amee waaye constitution la bu safaanoog ba yàlla tëral ci ñun amma lan la yàlla bëggoon jullit ñu doxe ca mooy doxalin boo xam ne ci moom la jógee subhanahu wa taala nga xam ne duñ ko xoolee ci projet de loi numéro tel tel tel waaye dañ koy xoole ca la yàlla wax ca aaya tel dañ koy xoole ca la yonent bi al islam wax ci hadis nangam loolu mbokk moom mooy constitution Sénégal mooy règlement dox mooy constitution l'islam sax maanaam Sénégal constitution l'islam règlement doxalinu l'islam ca mooy qaala allah qaala rasulullah constitution boobu wala doxalin boobu nga xam ne ki ko bind moo bind doomu aadama yi jële ko ca xam-xamam bu mag ba nekkul mukk loo xam ne nii luy soppeeku la di loo xam ne maanute rek moo ci nekk di loo xam ne yërmande rek moo ci nekk di loo xam ne boo ko xoolee da nga tey fekk képp ci jaami yàlla yi dana xam lan mooy waru garam ci kaw suuf dana xam lan mooy àq yiñ ko yoral ci kaw suuf muy ses devoirs et ses droits doomu aadama bi day xam ngan la way mbokk julit xam ne àq bi nga war a jëkk a ittewoo li la jëkk a war ci kaw suuf mooy àq bi dox sa diggante ak sa borom sa diggante ak sa borom boobu mooy lan mooy borom boobu nga gëm ne moo la bind nga gëm ne moo lay wërsëgal nga gëm ne moo lay dundal bis booy dee moo lay dee moo lay moo lay rey ca it ci moom ngay dellu loolu day tax ba dan la jëkk mooy nga wéetal ko bu ko boole kenn ci jaamu yàlla googe gannaaw ba jaamu gi bu ko jaamoo ludul loo xamee ne nii loolu la yoonal pour nga jaamoo ko ko ca lan kay def nga sellal ko suñu borom mu ne wàcc naa ci yéen sab téere ci dëgg jaamu leen ma sellal diine ji ay kon jaamu gi nañ ko tënk ca la yàlla wàcc ci ab téereem mbokk la nga xamee ni mooy wéetal yàlla mooy sa mboole mi dund lépp nga def ko ci yàlla tax booy julli na yàlla tax booy woor na yàlla tax booy rey na yàlla tax lépp looy jëflanteeg way jur ya di ko jëflanteeg doom ya di ko jëflanteeg ña ngay liggéeyal lépp nga la way na yàlla tax lii mooy la nga xam ne moom lu julli war a gëm gannaaw ba nga gëm ne xamal ne amul kenn ci kaw asamaan ak suuf ku la mën a yoral lu gën a néew ci njëriñ lu dul la yàlla tudd ci yow amul kenn ci kaw asamaan ak suuf ku la mën a teg la gën a néew ci lor lu dul yàlla tudd ci yow loolu mbokk mooy njëlbeenu aq bi julit war a gën a mën a ittewoo allahu akbar allahu akbar la ilaha illa allah wallahu akbar allahu akbar allahu akbar walillahi alhamd xam leen ne ñaareelu aq bi yow julit mooy aq bi nga yoral sa yonent sallallahu alayhi wa alihi wa sallam boobu nga xam ne moom la yàlla tànnoon mu nekk sabab ci nga jub mu nekk sabab ci nga mën a texe ëllëg yowm alqiyaama suñu borom garanti ko ni moom day du wax dara ci bànneexu bakkanam lépp lu mu wax maa ko ko waxloo mu ne lu leen yonent bi indil jël leen jëfe lu leen yonent bi tere bàyyi leen ko ca ngeen ragal yàlla yàlla ko tar ay mbugal la mbokk kooku mooy yonent yàlla bi ñu war koo gëm war koo topp war koo bëgg daana wax ne amul kenn ci yéen ku ngëmam di baax lu dul maa koy gënal ndeyam baayam gënal ko ay doomam gënal ko mboole mi mindaafoon la tax mu lay gënal mboole mi mindaafoon mooy waral ne ay ndégale mi ki tereem doo ko yeme kenn ci jaami yàlla yi ay yéen mbokk julit ñetteelu àq bi nga xam ne lislaam gàll na la ko ci kaw suuf mooy nga def njëkk jëmale ko ci say waajur suñu borom lëkkale na aaya yu dul jeex aqam ak aq way jur mu ne yàlla dogal na bu leen jaamu ku dul moom def leen njëkk ci seen way jur yi buñ demee ba kenn ci yéen màgget ci yow wala ñoom ñaar ñëpp ngan la waay bu leen wax ëf ngan la waay bu leen gëdd xoolal kaddu yi gën a neex nga wax koog ñoom wàcceel say mbagg ci seen kanam te xam ne mënoo leen a fay ak loo leen mën a defal mënoo leen a fay lan moo ci des rek mooy di leen ñaanal foo mën a toll naan yàlla yal na nga yërëm samay waajur comme li nga xam ne noonu lañ ma yërëme woon bi ma nekkee ab liir ci seen kanam yonente bi salallahu alayhi wa sallam daana ñaax góor ñi ne nga la waaye képp ci yéen ko bëgg aljanna na dem àjjana ma nga ca suufi ndëgg yaayam waajur yooyu ñu war leen a taxaw heure bu ñuy dund waaye bis bu ñu faatoo woon ñu gannaaw ñu bañ leen a fàtte di leen ñaanal fu ñu mën a toll di leen sarxeel fu ñu mën a toll di leen jéggulul la nga xam ne mooy suñuy boroom allahu akbar allahu akbar la ilaha illa allah wallahu akbar allahu akbar allahu akbar walillahi alhamd ay yow boo ko julit xamal ne gannaaw aqi way jur suñu borom yàlla farataal na ci yow aqi sa mbokki julit borom bi mu ne ragal leen yàlla ragal leen seen mbokkoo gi yàlla doxale seen diggante te xam ne yàlla mi ngi leen di fuglu fi ngeen mën a toll suñu borom yàlla tagg ñi nga xam ne dañuy jokk la yàlla santaane ñu jokk ko ca loolu la ca jiitu mooy ak mbokk yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne ku bëgg day yàlla yaatal sa wërsëg ku bëgg day yàlla barkeel sa dund ngar la way nay yo nay jokk la nga xam ne mooy ay mbokkam doonte ne rawatina yéen jeunesse bi xamatu leen lu dul ay xarit xamatu leen mbokk waaye lijjanti leen seeni mbokk ngeen di ko jokk loolu ci jaamu yàlla la bokk gannaaw loolu mbokk julit mu bokk ci àq yooyu ba tey it mbokk yooyu ak ak àqu julit ñi nga xamee ni nii yàlla dafa dogal ngeen mbokk diini mba ko xamal ne loolu day wareef la ci yow nga jéem a taxaw ci seen aq aq boobee mooy lépp luy toon mooy dul ko sa diggante ak ñoom képp koo xam ne nii daje nga ak moom nuyu ko képp koo xam ne yëg nga ne feebar na seeti ko képp koo xam ne nii woo na la wuy ji ko koo dogal mu pisooli sant yàlla na nga ko ñaanal gannaaw ba nga di ko laayi biir fu mu mën a toll bis boo yëgee ne faatu na nga topp ko lii day nga ko xamal ne képp koo xam ne yii la bokk diine yàlla subhanahu wa taala gàll na la ko ci yow waaye ñooñu nag mu am ñu ca gën a prioritaire ña ca gën a prioritaire mbokk julit mooy yow góor ki nga xam ne moom la la yàlla booleel muy sa soxna waaye yow soxna ki la yàlla booleel muy sa borom kër xamal ne suñu borom yàlla nee na la ma dogal seen diggante mooy mawaddata wa rahma mooy sa cofeel ak yërmande bépp sëy boo xam ne cofeel amu ca yërmande amu ca kooku échec na d'avance gannaaw loolu suñu borom mu ne wa ashiruhunna bil ma'ruf ee yéen góor ñi nekk leen ak seen soxna yi ca njëkk góor taxaw bi ngay taxawoo sa soxna yërëm ko di ko seet lépp lu koy lor nga teggil ko ko xamal ne loolu ci jaamu yàlla la bokk waaye yow it soxna taxawu ba ngay taxaw sa borom kër dégg ay ndigalam yem ci moytu ay kereem góorgóorlu di def bànneexam ngar la way xamal ne loolu jaamu yàlla ci jaamu yàlla la bokk loolee di mbir moo xam ne dañ ci war a bàyyi xel bu baax mu am ñoo xam ne nii ñoom ñooy ñu gën a jegeeti mooy doom yooyu nga xam ne moo judd ci seen diggante nga la way xam ne ne dénkaane gi yàlla la bu leen yàlla dénk xañ ko ay jaamam yu dul jeex ñoo xam ne bëggoon nañ ko ci amuñu ko sant leen yàlla ci doom yooyee fexe leen suuxat ngëm yàlla ci seen xol jàngal leen diina yàlla ji teete leen ci lépp lu leen mën a teral adduna mën leen a teral la nga xamee ni mooy allaxira suñu borom yàlla subhanahu wa taala mu ne del digal sa njaboot ñu julli da nga sax ci julli googee suñu borom yàlla subhanahu wa taala mu ne laa di mën a wërsëg man yàlla maa leen maa leen di wërsëgal mu ne yëpp ngar la waaye góorgóorlu leen mu jël seen bopp ci sawara mu jël seen njaboot ci sawara yonent bi alayhi salatu wasalaam nañu ku am doom mu am juróom-ñaari at dee ko topp muy julli bu demee ba am fukki at bu julliwul sax doon ko ci julli googee lii mbokk di mbir yoo xam ne dañ cee war a bàyyi xel bu baax waaye mbokk suñuy dëkkandoo dëkkandoo yooyu jullit lañu ak yéeféer lañu dañoo war a sàmm seen aq aq ba nga xamee ni nii mooy ca jiitu ci aq dëkkandoo yi mooy góorgóorlu ba bañ koo lor benn façon lor yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na képp koo xam ne gëm na yàlla gëm bi su penc ay waay bu mu lor dëkkandoom lor ba mooy di ko tawqal ci ay bruit lor ba mooy di ko sànni ay mbalit wala xet yoo xam ne xet yu neexul la lor ba mooy di ko def lépp loo xam ne xam nga ne bu la ko defoon yow mu naqari la loolu mbokk moom mooy lor waaye yonent bi yemul foofu yonent bi dem na ne ku gëm yàlla gëm bi si penc nay teral dëkkandoom say dëkkandoo loo man ci lu baax defal leen ko loo man ci lu baax wax ko ak ñoom te xam na loolu mbokk ci jaamu yàlla yi gën a mag màgg la bokk képp koo xam ne ay dëkkandoom dem nañ bay muslu sa ay yonent bi alayhi salaam nee na ku mel nii day du tàbbi mukk aljanna ay yéen mbokk julit lii day ay tënk la yu ndaw yoo xamee ne nii ah suñu borom yàlla subhanahu wa taala tënkal nañu ko ci suñu diine ji daal di ciy def suñu texe def ci loo xam ne moo ñuy dàqal problème def ci loo xam ne bu problème bu problème amoon it moo moo koy réglé amul benn changement bu ciy am ndax jógewul ci xeli doomu aadama yi nga xam ne référendum sur référendum projet sur projet luñ def tey bu ëllëgee ñu jàpp ne nag te baaxul woon waaye ki ko def mooy borom bi yàlla bi nga xam ne du fàtte du juum moo bind doomu aadama yi xam leen loolu kon ñu bàyyi ci xel bu baax ay yéen ndawal lislaam xam leen ne yéen day yéenay avenir u dëkk bu mu mën a doon su ngeen baaxee dëkk ba baax na su ngeen bonee dëkk ba bon na nga la way góorgóorlu leen xam leen ne day ñëpp a leen soxla fu ngeen dem am ngeen fa place waaye góorgóorlu leen dellu ci seen borom jàll waala góorgóorlu leen topp seen yonent sallallahu alayhi wa sallam fonk leen julli fonk leen néegu yàlla bi moytu leen lépp loo xamee ni nii ay bakkaar la njaaloogee góor jigéen bu bon gee la nga xam ne mooy drogue la nga xam ne mooy cigarette bi di détruire seen santé ngar la waaye moytu leen ko seen kéemtaneel kattan moytu leen jël alal ju léwul boo ci amee commencement yi fin ba du neex jamais lépp loo xam ne carte la riba la détournement de caisse mooy ak ger bu ñu lay ger la nga la wayu julit moytu loolu ëllëg ci si biir sa borom yàlla dana la ko laaj ca sa tontu du nekk lu neex nga la way ndawal julit seen morom yu bëri ñi ngi du ñu yendal du ñu fanaanal woote jëme ci ay ASC woote créer des matchs des des des des équipes de football woote di créer ay orchestre de musique nga la way yow ndawal julit bokkul ci ñi woote jëme ci sa borom suñu borom mu ne ana ko gën a rafet kaddu ci koo xam ne ñu ngi jóg di wooteel yàlla di propagandal yàlla bu yàlla jubalee ci yow benn nit wallahi loolu moo gën ci yow adduna ak li ci biiram gannaaw ba ay yéen yaay yi ay yéen jànq ji nga la way xam ne ne yonente bi salallahu alayhi wa sallam ci yéen la daan mujjee ca la nga xam ne mooy ay xubbaam xam ne ne ñi ngi ci jamono joo xam ne uute naag suñ jamonoy maam ya jamono joo xam ne tey occident moom mooy defar xelu doomu aadama yi kër goo gis télévision ma nga fa amul lenn luy modd bu bon bu bees lu dul xale yépp gisandoo ko nga la waay yéen yaay yi ragal leen yàlla ci loolu ragal leen yàlla di xool seenu col yéen seen bopp di xool seen colu njaboot yonent bi salallahu alayhi wa sallam nee na ñaari mbooloo ngi sawara lañ jëm day ñuy nar a ñëw sama xeet bokk na ci ay jigéen ñoo xam ne dañuy bari yére lool waaye buñ dinne dañuy rafetle dañuy rafetle inna lillahi wa inna ilayhi rajiun yàlla ñu nattoo woon la nga xam ne moom mooy benn bâton tey muy deux bâton tey ñu dem trois quatre bâton six bâton léegi dañu gis but bu but jigéen joo xam ne nii ay yéreem am na ci boo xam ne ñaari at solu ko quartier bi yëpp mën na leen a solol waaye bu génnee la nga xam ne mooy dënn baa nga ne fan baat baa nga ne fan bu dee suñ jànq jee foo jaa nga ne fan mu bokk lu grave grave nga am suñu jamono yi tey jii na am bokk pantalon yi jigéen ñi commencé woon nañ ko di ko sol waaye léegi gis nañ ne pantalon ñi tar dañoo koy sol ay friso la ñuy sol yoo xam ne day muule seen yaram seen awra ya bu na ko bàcc feeñal ko seen gannaaw comme na leen yàlla binde woon nga la waay yow bàyyi bépp xale bu jigéen buy génne sa kër ci loolu bépp yow yaay bépp sa doom buy génne ci yow loolu xamal ne responsabilité la boo xamee ni nii sa borom yàlla ëllëg dana la ko laaj te wallahi sa lay du rafet keroog góorgóorlu leen di waxtaan ak xale yi xam leen ne seen taraanga mooy ñu def li leen yàlla sant muur seen awra loolu moo leen di may personnalité loolu moo tax yàlla jàppale leen looloo tax malaaka borom yi bëgg leen looloo tax cheytaan yi sori leen amma bu dee yow nu la neex mel da ngay gis ne yaa ngi ci loxo cheytaan alhamdulilah lu bëri ci xale yi tey ñi ngi jóg jëm ci muuraay waaye mbokk xamuñu luy muuraay da ngay gis ko sol ab fusium wala ab bodeem ba pare jël kol bu ndaw teg ca bopp ba nañ leen leeralal ne loolu du muuraay muuraay day commencé sa diggu bopp ba sa suufu tànk la ngay sol lépp yaraax du génn sa benn cër la ngay sol lépp fatt du feeñal dara mbokk lii mooy muuraay boo xam ne nii moom la yàlla santaane amaa li ngeen dudul loolu modd la ak folklore nga la way ngeen góorgóorlu jéem a bàyyi xel ci loolu bu baax a baax ngal la waay mbokk julit ñi ngi santaat suñu borom ñi ngi sant suñu borom mi ñu matalal koor gi mu ñu santoon barki démb lañ ko doon séentu yàlla na leen yomb na ay fan yu néew la alhamdulilah fan yu néew la mi ngi ni leeru koor jàll na ñi ngi ànd ak suñu ndëb tey jii di korite mbokk mbig boobu yàlla nañu teeru yowmal qiyaama yonente bi salallahu alayhi wa sallam nee na waa ji woor am na ñaari mbég mbég bu njëkk bi mooy bis bi muy kor yi waaye beneen mbég bi mooy bis bi muy taxaw ci kanamu boromam bu ko defee koor daa di ñëw alquran daa di ñëw ñu ñëw na ay borom bi yàlla sa jaam bii day koor na man maa tax maa te teewoon muy aj ba cëkk alquran ne ay yow yàlla sa jaam bii day man la taxawoon guddi di ko di di di di di di di di di di ma tar yi ey yàlla baal ko ngir ñun ci loolee suñu borom yàlla ne waa ji jéggal naa la demal nga tabbi aljanna yal na yàlla subhanahu wa taala boole ñu ci ñooñu yal na yàlla subhanahu wa taala boole ci ñoo xam ne seen góor gi ñu doon koor borom bi dana leen wax dem leen nag léegi aljana lekk leen naan leen num leen neexe ngir muñ ya ngeen muñoon la ma leen tegoon ca adduna gannaaw loolu mbokk julit koor gaa ngi nii jeex na waaye yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daa dañu wax weeri wi nu jëm di weeru shawal képp ku mën a fexe ba woor ci juróom benn fan yàlla dana considéré na at bi yépp da nga koo dëkk woor loolu it yow mi woon fanweeri fan juróom benni fan wurul nekk benn problème ci yow yal na yàlla yombal ko ci ñun allahuma rabbana yal na ñu nangul suñu koor yal na ñu nangul suñuy naafila ñépp ñoo xam ne di- allahuma jëloon nañu seen alal def ko ci ndogu yi sa jaam yi di ko ndogoo jigéen ña nga xam ne ñoo ko doon togg yal na yàlla jéggal leen te yërëm leen yal na yàlla wuutalal leen lu gën lañ ci defoon yal na yàlla barkeel barkeel njaboot gi yal na yàlla boole ñu ci ñooñu alquran ni nga xam ne noonu lañ nekkoon ak moom ci weeru koor yal na yàlla wërsëgal ñu lënkoog alquran ba baa ñu dajeeg moom yal na yàlla sippil ñu boole mi bakkaar yal na yàlla wàcce ci ñun ak njubam ak yërmandeem yal na yàlla ñu jubalal suñu njaboot yal na nga leen musal ci ay yi ñuy jóge ngay joor ak càmmoñ yal na ñu teg ala sirati mustaqim yal na ñu may jàmmi àdduna jàmmi alaxira ay yàlla suñu mbokk julit ya nekk ca Syrie ya nekk ca Afghanistan ya nga xam ne ni ñoo nekk ca Yemen ya nekk ci Libye ak Iraq ak yeneen yu ma xamul ay coono yu bëri la nga nekk ñu bëri ci ñoom day sa ñoo it loolu nag borom bi yorul yaa ko mën a teggi yal na ko tegg ci sa njëggal ak sa yërmande mboolem ñi am ay ñàkk ci ñoom yal na nga leen woom leen mboolem ñi am feebar yu leen jaaxal yal na ko teggi ay yal na yal na ñu wërsëgal suñ ndaw ñoom ñëpp ñu am ay sëy yu barkeel te gannaaw ba ñu am ci ay njaboot yu barkeel yàlla yal na ñu wërsëgal ñu gërëm la nga nekk suñu borom yal na ñu wërsëgal ñu gërëm sa yonent mu nekk suñu royukaay nekk suñu sëriñ bu ñuy layloo yal na ñu wërsëgal sahabatul kiram nekk suñuy soppe yooñuy booleel ci àddina yu kawe ya allahuma rabbana atina fi dunya hasana wa fi lakhirati hasana wa qina azab annar subhanaka allahuma rabbana bihamdik nashhadu la nashhadu an la ilaha illa ant نستغفرك ونتوب إليك الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد